léegi jëlal sa vidéo bi cinématique bi vidéo naturel bi bi ngay defar pour bëri fii def collage bi may jaay nga boole ko tey. ah. tey moom. <laughs> sama maam moo xewle. sa maam la. sànq nag jël nañ ko def na ay témoignage yu doy waar yi seen diggante macha allah waaw vraiment. bul wax waa fa la bul cat rek. yàlla ànd bi gën a sax. amiin yàlla defal jàmm. amiin adduna daal doy waar. am na ñoo xamante ni ñuy ànd rek la ñuy bañ. mënut a ñàkk. waaye borom salon bi kenn du moom. waaw moom it. waaw. dégg naa xoolal kenn dematul ba ba ba Dakar. ba Dakar ah ñëpp fii la ñuy yem léegi. Ah, ah, waaw boo nekkee Thiès dafay dafay doon ki Thiès. waaye yow fi mu woon kële yow. yow xam nga ne verre laa jàpp sa ah. merci. ne tànn bi réew. Ah, ah kii dana dana ñëw ba Thiès nga laaj autorisation macha allah sañ si ah c'est ok pour vidéo ok ça va waaw vidéo ok nga baax bari personnalité mën na defar mën na ñaw maman maman day acca acca akolaat ko ñëwal nga waa ji yaa sañsel mbuus mi laa toog di solo ko waaw Ndeye Ndiaye sañse nga nag si Alassane hmm. Hmm. sama waa ji dafa baax de moo ma tax a déplacé wu euh, Dakar ba nit ku am personnalité la nit ku baax nit ku mën a wax lu rafet nit ku mën a ñaw boo koy seet rek ci Ndeye Ndiaye mii barki Seydina Mouhamed jàpp ko mm-hmm. kii dama koo naw ci benn côté mm-hmm. ba pare du yàq naw leen mm-hmm. gis nga ku muy àndal dalay def ni dafa am fu ñu jaar man ak moom fu garaaw mu wax ma rafet yoo xam ne si laa ko jàppee xam ne kii du yàq naw leen barki Seydina Mouhamed buy ànd ak yow day sa xol sa chauffeur ko man du sama xarit mais nit ku baax la ma xam ko ci internet bi ñu séq man ak moom woo ko ko expliqué mu ne ma non non dugg na fii di départ départ départ départ départ ba man mujj gi lu ma jàpp dama koo baax yaa baax yaa am personnel yoo xam nga ni boo xewlee ma paas ma jël sama oto chargé ko essence jógee dakaar ba Thiès ñëw man ma ñëpp a ma yëkkati ma def ci kenn di jëntiwuma kenn mais yow nit ku baax nga nit ku bari valeur nga nit ku bari personnel def bëgg jëkkëram yam ci jëkkëram jëkkëram rek kon ma mm-hmm. alsa kon Ndeye Ndiaye bi ñuy gis ci télé bi yow xam nga beneen Ndeye Ndiaye bu dul boobu kii dafa yow man ku ma la ne baax na rek xamal ni baax na. li ma bëgg a wax mooy boo jaxasoo ak moom da nga gis yeneen. jikko barki kii boo ko gisee ci internet muy wax. Mhm. danga naan kii dafa pànk. Mhm. waaye boo boo boo ropanteeg moom nekk ak moom dangay xam ne kii li li li Ndeye Ndiaye di suwe mhm. nekkul ci ci ci jikkoom. dafa ragal man maa la ko wax. man du ma dafa ay million ma liggéeyal ko ma gis lu ma naqari ma woo ko. mais geste bi mu def ak defar gi muy defar naa ma non non defal nii defal nii defal te tey bu doon see se xale yi léegi si dañ la naan waaw diw lii diw lii diw lii mais dafa defar ma xam ni kii nit ku baax la barke Serigne baa Mbacke jaan ci pax mën na nekk ak moom parce que tegle naa semaine di ko yendu ak moom di liggéey ak moom mu nekk nit ku am personnalité nit ku baax nit ku bari valeur man du ma ne kenn yàllaa ngi nii te gisuma ko man lu ma yëkkati yombul démb dama demoon Viviane ba dama sonn tey moom moo ma tee dem Viviane ba ba pare tey am naa yeneen programme moom moo tax ma wacc ko ñëw même bu ma damay ñëw mu gis ma parce que nit ku baax la nit ku mën a ñaw la nit ku am personnalité la nit ku bari dignité la moo ngi ni toog xam nga nit dinañ la jox róor nit ñi foog ni róor boobu yow noonu nga mel melul yorul sax jikko jooju man lu ma la wax si ndey mi takk ko téere barke Seydina xaw ma toog ak moom jouer ak moom yeddu ak moom fuu mii duma bàyyi ma fen xam na li may wax ndax bu ma woowee jotuma fuu lay woo fuu ne ma nday ñaay mii nit la kii ku baax la moo tax nit kenn du ko jugé nit kenn du ko jugé mhm. xam nga kii lan la ma defal hmm. xam nga jamono ji ñu nekk nit ñi dañuy jayaate du ñu wax nit dëgg te booy ànd ak nit ànd nuñ koy waxee ànd jayante la tàqalikoo jëwante dañu dund maa moom ci lu ma la wax nii ma woo ko mu rafetal est-ce que xam li ma la wax mu rafetal te tey bu doon keneen day yàq danaan diw ah noonu la mel kii ak a bon ak a def nii mais dafa defaral ba ma naw ko ni moo tax ma xam ni kii kuy ànd ak moom boo teewee da ngay rafet boo wanee ginnaaw da ngay rafet nit noonu lay mel te damaa gis ci moom jikko yooyu barke Seydina Mouhamed billaahi wallaahi wal kitaab dama dund ak moom loolu. moo euh, dafa am ñoo xamante ne dañuy ànd ak maam Ndiaye ndax am ñoo xamante ne dañuy ànd ak Ndeye Ndiaye ndax xaaj alal bi moom kii euh, euh, am na ñoo xamante ne ku nekk am na lu muy wut si ki nga xamante ne moo di maam Ndiaye sa waaye Ndeye Ndiaye dafa ñëw wane fulla ak fayda ak kóllëre tax na nga jàpp. Ndeye Ndiaye li ma la wax déggoo ma du sama xarit. Mhm. dañoo séq liggéey mu génne xaalisam dugg sama oto génne maletu xaalis fay ma man liggéey laa séq ak moom ñu signé man ak moom contrat mais dama ko naw ci liggéey boobu parce que boo ko séenee ci internet bi wala théâtre muy wax danga naan kii dafa bangam mais boo jëflantewul ak moom doo ko xam ma jëflanteek moom mu nekk nit ku baax nit ku bari valeur nit ku bari personnalité man duma waxal kenn ni yàllaa ngi nii te gisuma ko man benn xale lijjantiwu ma benn xale faalewu ma xale man xale duma may lu ma amut ndax bu xale yi xëyee damay xëy bu ñu wàccee day may liggéey ñoom bu ñu wàccee man damay liggéey continuer kon kooku kooku faalewul kenn mais kii kenn la ci àdduna man maa ko wax du ma kenn loo xam ne nekkul ci man barke Serigne Fallou Mbacke na ñëwal waaw man damay wax ni dafa baax rek euh, comme li ma wax sànq dafa baax rek mm-hmm. ndax ku soxor du gërëm ku iñaan du gërëm mm-hmm. te mu lii nii mënoon naa ko sekk ak moom mu nëbb ko téye ko bañ koo wax te boobaa tamit dara ndax moom it li ma sekk ak moom tamit man sekk naa ko moom gis naa ni moom it am na personnalité te respecté na kàddoom ndax liggéey lañu sekk may def kër Ndeye Ndiaye si ak Raf Prod Sénégal ku ne xam na ma ak Raf Prod mm-hmm. Clara di PDG bi di sama nit ku ne xam na maa moom mm-hmm. ma koy def mu jël lépp teg ko sama loxo ne man ndey kër Ndeye Ndiaye bi gérer ko mm-hmm. ma gis ko ci sentir ko ci ma woo ko ba ma ko woowee munoon naa rejeté wala mu wax ma benn wax boo xam ne ndax fii bari na fi ndax nit ma mën nga génn benn génn rek yéeg succès mm-hmm. mu yéeg sa dënn poñe say ween succès tam succès dafa garaaw te macha allah dalu ko dani ma carrément ndey damay ñëw mu nelaw ba guddee tëdd ma yee ko fajar laaj ko fu fu ngi ni duma bàyyi ma fen mu taal otoom ñëw tournel ma ba ma pare ci moom mu dem ñibbi te loolu ku am personnalité am classe mënu ko mhm. ku ko amul mënu ko franchement ndax loolu dama ko cee téye billaay wallaay taalaaxe mu ñëw liggéeyal ma normalement alsaan sama jëkkër sax da koy wax ndax mënoon naa ni tardeel tournage bi wala mu toog ba heure bu ko neexee du ñëw ndax loolu bari na fi mais defu ko yëfi profe professionnel la def te macha allah loolu tamit dama la cee naaw nga nekk nit ku baax tamit may gis say baax baax te àddina moom mun nañoo xaw ma nuñ koy waxee mm. euh, tëj lépp ba mu des gémmiñ man sama gémmiñ du ma ko bu ma nit defalee lu baax dama koy wax mm. lu ma defal moo tax ma wax ko mm. soxla naa ko ñëw na liggéeyal ma normal amuma ci problème dama la ci sant di la ci gërëm wax dëgg fa yàlla yaa ngi ni jóge ba ndakaar tamit ñëw si sama bis bu la neexoon bañ ko mu bañ laa dal du dëgg mais mais dafa Maam Ndiaye am na fi ay événement yow nga jógee Thiès dem fekk ci ko Dakar tey aussi tamit mu fay la li nga xam ne yow yaa ko ko lebaloon ndax dafa mel ni seen relation dem na ba euh, euh, daanaka liggéey ak liggéey ñaari nit yu liggéey seqatoo leen ko fam da dem ba familiariser wu seen diggante. waaw mais dafa am xewle programme am Euh, woo ma booba euh, feebar naa tom tamit moment yooyu mais dama ne mënul duma mën a bañ a dem ndax kii li ma ji la déggoo li ma la wax nit benn affaire la lay defal nga téye ko tam man damay téye nit benn affaire nga may defal bu ndaw ma jàpp la ci mënoon naa ko woo 22 appel du ma jël du dëgg ma woo ko mu jël ma ne man ndey maa ngi ñëw des fois ma ko jotul fuu mi laay woo wax na dëgg te bu ma jotee fuu mel na ni moom laa jot ci saa si mu ni ma ndey maa ngi nii di ñëw ñëw liggéey demaat waaw dama lay sant di la gërëm ba nga xewlee sa euh, Kazu Rajab ba nga ma woowee lépp laa bàyyi ma ne damay ñëw force ndax li ma ji la mm-hmm. mi ngi noonu jama moo jaay ci waaw lax laxaata laxaat ALG looy laaxatu maam sañse na de defar bopp bi kaay ñëwal. waaw. aja waaw Ndeye Ndiaye sañ sañ nga ma la ñawal moo ngi nii taxaw ah moo la ñawal lii waaye yow doo ma ñawal ci lii ah mënu ma ko defal vidéo dama ñawal rëkkal ma defal ko vidéo ah AMC mi na kat kañ nga may rëkkal yow na de gars yi ñëwal ko. eh ñoom fu jox ko sa numéro ni ñëwal. yaa mën na bii rob musuma ko gis fii nga dëkk Thiès di ñaw lii. Ah, Thiès di ñaw lii. mbaqul. silo bi mbaqul. ñaw bi mbaqul poignée bi mbaqul yaa mën. mën nga. maam nday xool ñu. macha allah. Ah, maam maam leen ngeen def ben photo rek. wala ngeen taxaw saa de. bu taxawee. man day jaay boo gisee Serigne Sall damaa nekk ci toolu mooy. xam nga dama def bés bi naan maa ala sama ñëw bi lan la ci wax man ko dina la koy indi. Touba Serigne Touba damaa gis rek soogu ma. ñu ñëw nañu si. Clara ñëw nañu. Clara ñëw nañu benn vidéo rek. Clara daa demaat ba Dakar. benn vidéo rek. da ngay gaaw si seen. Clara mi ngi noonu mi ngi noonu de. mais xool leen ñu ngeen defal benn photo yéen ñaar rek ensemble kontante leen. Oh. ah voilà merci beaucoup. Oh. oh lii rafet na. maam Ndiaye. oh c'est joli. merci. ah ma sa yaay. tonga. Ah, yàgg naa laa dégg bëgg. ah dëgg la. dëgg la laa lay déggee. Ah, ah Fatou Ba Kalle mu dina suivre fu mu toll. sa benn compte bi sax sama ami. xale bu jigéen waaw ma jaaxal waaye mooy ma jaaxal. dëgg la dëgg la ma daal di waaw. waaye mën nga nag dugal ma sama ami. jamono moom ay may kër. maa ngi lay def maquillage nag. man kay foog nga xam ne ñëw ba Dakar. ñëwal baal nga may sa baax. maanaam sumbeeku woon sax day bëgg a sol yére. day ñaay mii. suñu yaay bi li muy wax am na solo de. soxna si. damaa suñu nekk woon sax bay bëgg sol yére ndax suñu délégué marché dafa xew la tey biig laa demoon kër day jaay kon may ñaan yàlla di julli ci yonent bi alayhi seen ànd bi ñuy ànd yal na leen yàlla seexlu ci cat bu dee doomi tarixa Seex Ahmed Tijaan laa su nekk ci tarixa Seex Ahmed Tijaan mu bokk ak maam borom Touba. yàlla na leen yàlla la xal amiin kii nag sama doom la di jama mooy sama taaw mu ànd ak Ndeye ñu nekk ay xale di ànd di bëggante di bëggante ba léegi si Ndeye nit ku baax ku mu am indil na ko jam lu mu xam ci lu baax ñëw na daw su boppam mettee sax lalu jama bee la koy tëddee si xool kenn gisul kenn ku dul jama bëgg jama def ko doomu ndey musuma dégg ñu werante fii de sanoom la doomu aadama bu nekk fii ñëw mm-hmm. waaye moom mii li ma ko def ci sama xol mm-hmm. barke sëriñ baa ba Sy ma yaakaar def ma ko kenn ci benn xol ndax nag moo ko moo ma ko ji moo ma ko mm-hmm. wan bët ba muy xool yaay moom la may xool kon yal na ko yàlla la fal ca lu muy jeex ci sëyam moo ko xam yal na ko suñu borom woon ndax bëgg na jama teg na ko place fonk na ko jamaa xutti moo ñaw lu mooy def lépp waaw lu mu bëgg a def sama yoon nekku ci yama lépp yow la xew yi li muy rëy rëy rëy lii lépp janaa ko def yow nag Njaay Jaata ñaw yëpp sama loxo dañ lay ñaanal yàlla yàlla xëcc saw fan ndax nag booy ànd ak xale mm-hmm. mu rafet ci yow la ndax seen ànd dara ñaawu ci mm-hmm. man ba ma la delee dégg xaw ma woon li nga ñëw sama kër gi am ngay def lu baax mm-hmm. di wax lu baax di leen digal lu baax dugaloo leen ci lu bon digaloo leen lu bon ba ma xoolee leen ci kàmb toujours def leen ni def leen naa ngeen di wax te lépp lu baax lay doon kon yal na yàlla fay yàlla doon leen sutura yàq eggul kontaan naa kontaan naa jërëjëf kontaan naa maa kontaan naa maa gën a kontaan naa foo jox ko sama numéro xanaa nag di ngeen wàcc seen caméra yi pare nañ moo leen fi caméra waat Thank you